bi bañal na ma ma mën a génn réew mi te bi mooy ñetteel yoon bi mooy troisième fois man maay kenn ci maire ci Sénégal fal nañ ma maire depuis fukki weer ak lu tegu maire yépp ngi génn dem defar seen coopération décentralisée ñi ñu jumeleel ak dem participer ci forum internationaux yi ut lu ñu àndil seen mairie mel nu man maay maire boo xam ne tey mënumaa génn Sénégal nee nañu je suis sous contrôle judiciaire pourtant bu leen nit bindalee lu leen neex nañ ko sa nekk contrôle judiciaire nañ ko bàyyi mu dem Paris mel nu man maay maire boo xam ne mënumaa génn tey réew bi ci mujjee mooy ñaar fukki fan ci gannaaw samay avocat déposé nañu nekk suñu client dafa war a dem Guinée Conakry dafa war a dem Mali dafa war a dem Burkina Faso dafa war a dem Côte d'Ivoire ci cadre activité politique am mais a ah aussi cadre maire parce que fu mel ni Mali dañuy terminer suñu euh, accord de coopération ak commune Kati et fu mel ni Côte d'Ivoire commune Boaké nga xam ne moom la ñu jumelé ba tey jii ba sànq tontuwul xanaa kay administration judiciaire le minimum mooy nit su la bindee nga tontu ñaari at ñu tere ma génn réew mi pour ma jógee Ziguinchor jaar par la ñëw Sénégal ñëw ñëw Dakar sax mënuma ko parce que faw ma jaar Gambie ndax su ma buggee jaar Vélingara jaar Tamba daanaka 1000 kilomètres la te mënuma ko ñaari at ci lu dul dëgg loolu ba kañ kon jàpp naa ni